du Ndiaye laa tudd euh, donc bokk ci association euh, des habitants ak propriétaires maanaam ñi fi am terrain ak ñi dëkk. suñu solo daje bi tey euh, gis ngeen ko lu am solo la mooy ndox mi nga xamee ni moom mooy bal di ñëw di wut ci sunuy kër yi te ndox mi fi mu nekk nii am na kër yu mu nangu te ndox mi fi mu nekk nii am na ñoo xamee ne ñii. donc nekkatuñu seen kër toxu nañu parce que nag feneen inondation yi taw bi moo leen ko indil fii inondation yi ñi nga xam ne taw bi moo leen ko indil ñëpp xam nañ ko mais ñun du taw bi moo ñu indil inondation yi li ñu indil inondation yi mooy canal bi ñu defar depuis 2013 ñu defar ko ñëw sànni ko fële ci booru kër yi bañ ko fay sànni ñoom foofu amul ay terrain biñ ko fay sànni dañuy wax ne foofu amul ay kër et pourtant foofu dé dédommagé nañ fa ay nit fi canal bi nekk dédommagé nañ fa ay nit ñu toxu balaa de balaa ngay dédommagé nit kay day fekk moom mu am kër foofu mu am terrain foofu mu am këyit léegi nag ñoo ñëpp dédommagé nañ leen ba noppi ñu ne léegi foofu place ndox la te ñun depuis quatre-vingt-seize ñu ngi fi boobu temps amul kër ay jardin rek fi nekkoon mais fii musul taa fii du fuy taa ndox mi canal bi moo ko indi boo leen gisee suñu pancarte yi ñun du lag bi moo ñu indil problème lagu mbëbës bii dañ ko toog fii di ko gis ay trois kilomètres indi lu ñu problème li ñu indil problème mooy kanaal bi nga xamee ne bi dañ ko bàyyi foofu ci ci Madina Gànna Saar muy bal ñuy pomper ndox yi di ko ci sànni ay la yéwén dañ doon régler problème mu nit ñi loolu d'accord nañ ci ñoom làq nañu doom mais ñu ngi dóor doom parce que fi mu nekk nii ñun amatuñu ay euh, euh, am na ñoo xam ne si ñun dëkkatuñu fi amatuñu seen kër te bu ñu bàyyee nii dina ñëw ndox mi dina ñëw ba fii ñu taxaw projet bi li jun njaag mooy njaag parce que ADM ñoo defar ñoo doon met ñoo doon ñoo doon defar euh, canal bi mais CSE moo ko exécuté mais canal boo gisee fi ñu ko sànni da ngay xam ne fii ñoom dañ ko fi sànni te liggéey bi jeexul canal bi dafa waroon a dem ba ci biir dex gi après mu am benn pompe auto amorçante mooy pompe boo xamee ne day démarrer bu dex gi atteindre benn niveau bu demee ba ci benn niveau mu daal di ñu daal di ko sànni mu te pompe boobu mi ngi fële apex de l'autre côté léegi nag ñoom àggalewuñu canal bi ba ci biir dex gi waaw te léegi nee nañu projet bi jeex na ñu ngi wax projet un ak projet deux léegi kay ñun li ñuy réclamer c'est très simple mooy ndox mi ni ñu pompelee nit ñi fële ba ndox yi jóge seen kër yi ñu nekk si jàmm ñun nañ ñu pomper lii ñu nga xamee ne ñoo ñu ko indil ñun du ndoxu taw bi de ñoom ñooñu seen kanaal bi moo ñu indil ndox mi dañu bëgg ñu jëlee ko fi ndox mi ñu pompe ko bind nañu gouverneur bind nañu préfet bind nañu président de la république ci boppam bind nañ ko waaw di ko wax ne ko ADM fi mu bàyyi kanalam euh, bi du foofu waaw lii projet bi dafay yàqal nit ñi parce que fii mu nekk nii ñun ñëpp suñu kër yi ñu ngi dañu dañu menacé ñu ngi tëmb ci biir ndox mi donc léegi dañuy demander projet un bi ñu reprendre ko bu ñu amee projet deux ñu boole ko ci def avenant ci projet boobu daal di ko dugal euh, daal di jël euh, canal bi yóbbu ko ba ci biir dex gi te fële ñuy wax naan pompe boobu ñu naan day fonctionner doxul pompe bi doxul nañu xam ne doxul waaw. Ah, suñu taxawaay suñu taxawaay kay mooy ñun ay citoyen lañu et puis ñun euh, bu fekkoon ne yàq moo ñu tax a jóg dañu naan dañuy buuse canal bi mais yooyu duñ ko def. parce que ñun ay citoyen lañu te canal bi dafay am ñoo xamee ne ñi tamit da leen di dafay wàññi seen coono mais ñun moo tax ñu woo presse bi woo opinion bi woo bind bind autorité yi pour wax leen ñu sensibiliser leen suñu problème ñu regle ko ñun lépp lu ñuy def daal dañ ko bëgg a def si njekk ak teraanga waxtaan waaw ak dal waaw mais nag président de la république nañu dégg waaw nañu dégg joxe instruction yi nga xam ne moom la war a joxe mu joxe ko euh, ministre bi nga xamee ne moo yore euh, kii euh, kii territorial yi mooy xamee ne mooy moo yore ADM ñu daal di liggéey liggéey bi jëlee fi ndox mi ba noppi dugal ñu ci projet 2 bi ak projet 3 bi fii ville de Pikine moo defar lotissement yëpp waaw kon boog kan moo ku wax ne fii ay lotissement yu yu falaa falaa la kooku dafa wax lu ko neex fii koo fi gis dafa yore kayitu këram te lotissement wu maire de Pikine moo ko defar ak euh, préfet ñoo ko signé mu nekk ay acte administratif am na sax ñu fi am bàyyi waaw am na ku fi am sax titre foncier waaw kon boog fii ay dëkkuwaay yeewoo mat na trois cent personnes trois cent familles daal trois cent familles gis nga tey jii bu dul woon jouru liggéey fii nit ñi duñu xaj fii si kaw kër gi waaw ëpp na ko waaw ëpp na ko plus de trois cent familles ñu ngi fi en tout cas waaw loolu au moins au moins si benn quartier rek laa wax waxuma yeneen quartier yi nga xamee ñoo ñu wër waaw mu nga xamee si des milliers de quartiers des milliers de personnes ñoo fi yeewoo Amadou Ndiaye voilà fi mooy quartier cité marine Kër Massar waaw extension Kër Massar